asalaamaaleykum àdduna asalaamaaleykum waa diaspora asalaamaaleykum waa Sénégal ah yéen mbokki téléspectateurs yi suivre Mbedd Vision ah ñu ñëwoon tey jii nii di leen présenter benn émission bu bees émission bi ñu ngi ko tuddee émission waar bi ah émission waar bi dafay dox si ñëw si ni si gars yi lu ñuy waar euh, waxtaan ak ñoom ama posé leen ay questions sottante ak ñoom ay xalaat ñu ñëwoon fii nii tey si Maristes ñu ñëw si Maristes ah, ñu seet si Darmanko électronique Darmanko électronique ñoo nekk fii si Maristes ah, léegi gars yi ñu bàyyi leen ngeen ngeen xool ñoom ñu ñuy liggéeyee fii nii ñu xool acca gars yi ñu dem ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay bu baax a baax. baa yaa ngi am jàmm baax. waaw ñu ngi tur la. waaw man Omar laa tudd Omar Diakhoumpa laa tudd. Omar Diakhoumpa. waaw di mécanicien automobile mhm. nekk fii Darmanko. Mhm. di fi def électromécanique. Mhm. lépp luy mécanique ñun dañ koy def. waaw ñun moom loolu mooy suñu suñu rôle fii quoi si Darmanko électronique. mooy électromécanique mécanique générale. waaw mécanique générale tôlerie peinture climatisation lépp la ñuy def. lépp loo xam ne oto soxla ko rawatina oto électronique yi ba ci hybride yi. oto courant yi électrique yi dañ koy defar dañ koy dépendre fii. waaw loolu mooy sunu liggéey daal. léegi damay ñëw si question yi ñu xuus si waxtaan bi. Hmm. yow kañ nga dugg si métier bi. waaw métier bi nag euh, yàgg naa ci lool. Hmm. boo gisee xale yi ma leen di jàppale looloo tax. Hmm. ndax dama jàng école mën naa ne euh, BFM laa am bàyyi. ba ma bàyyee nag ba léegi maa ngi ci métier bi def ci ay ati at. Euh, def naa ci vingt ans daal waaw def naa ci vingt ans ci métier bi. kon donc yàgg naa ci daal moo tax euh, xalaat boobu moo waral tey xale yu bëri tamit ma leen ciy jàppale. Euh, loolu am na solo bu baax a baax a baax te ba ma ñëwee fii nii dama fee gis laa xamante ne dafa raar parce que dama fi gis benn ay matériels yu bari hmm. parce que ba ma ñëwee fii gis naa la nga yor sa benn tablette ba nga xamante ni moom ngay tablette bi la mooy la njëriñam fii. waa ñun machine yi moom yi ñu ci yor bëri na trop tablette bi diagnostic mooy mooy liggéeyam ak programmer ak yenn détecter panne yu ndaw yi da koy gis am nañ fi aussi machine caabi am nañ fi machine boo xam ne calculateur rek lay programme liñ fi yor ay machine bari na trop mais machine bu si nekk dafa am loo xam ne ci la gën a ay moo tax machine bi ma yor ko pour pose yi moo ci gën a ay su dee BM Golf Audi am na beneen machine su dee Range am na yeneen machine yoo xam ne ñu ngi fi ñoo ci gën a ay waaw loolu moo tax machine yi bari na fi trop te tamit liggéey bi toll na foo xam ne il faut nga am matériel pour mën a liggéey muy matériel électronique yoo xam ne foog mën ci liggéey ndax diagnostic yi léegi métier bi foog nga yor ay machine ndax machine mooy détecter panne yëpp pour yow nga mën a xam lan ngay def sinon da ngay làmbatu rek. Mhm. waaw facilité bi moo waral machine daal moo ñu yombalal liggéey bi daal. Ah, d'accord mais liggéey bi est-ce que yaa ngi ciy gis sa bopp bu baax a baax a baax. waaw non liggéey moom ñu ngi ciy gis suñu bopp comme ay sénégalais lañ. Mhm. waaw xam nga comme réew mi lañ am. Mhm. metti na ndax lépp yow yaa koy defal sa bopp. kenn du la jàppale mais dañuy dañuy gëm rek comme réew mi lañ am toog muñ. lu mu métti métteet da ngay muñ ndax euh, njabootu Sénégal si Sénégal nga juddoo aussi mënoo dem ndax yor naa ay boy yoo xam ne dañoo découragé ñi ñi ngi Gambie ñi ñi ngi Maroc di liggéey foofu mécanique ñi dem nañ Allemagne mais man comme dama njaboote xale yi ñu am man ci yaakaar lu mu métti métti da ngay toog bokk ñoom rek moom moo ma fi bàyyi daal loolu am na solo bu baax a baax a baax mais mais comme comme comme y' a la plupart yan yan yan client ngay ëpp di am waaw léeg-léeg di nga am euh, ay client particulier yu bari waaw mais di nga soxla état bi day am ay marché mais marché état pour jot ci day xaw a difficile quoi. waaw ndax doo leen xamul xamoo fooy jaar duñ la jox ci marché bi daal. te dangay ci particulier yi xëy na nga liggéeyal benn entreprise privée mu dimbali la jox la yenn marché yi jàppale la ko daal. léegi ban message ngay laaj ngay lancé ab ngay lancé état bi pour ñuy jàppale ñi nga xamante ne ñi ngi fii nii di di di job bëgg di leen tàllal loxo ban message nga leen lancé. état moom message bi ma koy lancé mooy mu mu gëstu ouvrier yi quoi. vraiment ñun sonn nañ te mosuñoo génn te te éducation yar da nga yor xale yaa leen yar yaa leen di jàngal te ñun ñun man boog état bi man moom gisuma lenn loo xam ne jàppale nañ ko lépp sa moyen bopp la xale yi yaa leen di jox añ xanaa xale du nekk ci yow ndékki jot nga koy bàyyi yaayam di ko jox yaa koy jox ndékki yaa koy jox añ wëlbatiku di ko jàngal métier sa moyen bopp état bi li mu la mënoon jàppale mooy jàppale la ci ay marché kenn ñaanu leen ah man ñaanuma leen mais ñu gëstuñu ci marché yi ñu yor dimbali ñu ci jàppale ñu ndax suñu entreprise yi mën a màgg quoi. loolu cri de cœur la état bi ñoo ko déggandoo. Mm. bon léegi damay gën a xuus si ci question yi rek. Mm. léegi yow fii ne est-ce que mës nga fi am benn client ba nga xamante ni euh, mës ngeen liggéey ak moom ba pare mu mu énervé wala mu mer wala mu am lu ko metti taxaw fii daal di tàq sa kaw wax ci wax ci lu wax lu la metti wala dara. waa non dañ koy dund fii moom dañ koy dund lu ne mais yow comme yow yaa yow yaa woote. façon nit bu ne ngay gis da ngay gis koo xam ne moom doole la lay jaay ndax day xam ne état bi la nekk da lay ñëw jaay la doole bu nduxataal la mais da ngay obligé yow sa bopp nga muñ xam ne comme yow yaa woote nit ñi ñëw ak lu mën a am te aussi danga nekk ay xale di leen yar da nga leen di jàngal mën a muñ aussi kooku du ñëwee nga dal façon nit bu ne ngay gis ndax xam nga sénégalais yi ñii dañuy ñëw pour liggéey ñii dañuy ñëw pour sa saboter mais yow miy liggéeylu nag ku ñëw rek war ngaa mën ko boot fexe mu am satisfaction ndax tamit ouvrier yëpp loolu laa leen xelal. képp ku yor ouvrier kuy liggéey bëgg a avancer na fexe client bi ñëw rek kontaan quoi. defal sa maximum mu bég su ko defee yàlla mën na la suturaal même bu la fayul yàlla sunu borom fay la daal. waaw ndax état boo xoolee ouvrier Sénégal ñoo gën a sonn ci réew mi. kenn respecté wuñu te xoolal naaj bi ni mu tàngee. ñoom ñëpp ñu ngi seen kër yow yaay sëgg di defar ak sa calcul te toujours rek yaa ngi rayante pour loolu baax pièce bu bees pour nga am ko fii danga koy commandé pièces yi bu retardé tuuti dañuy dal sa kaw aussi pièces yi yu bëree baree bëri da ngay dem jënd occasion lañ lay jox kenn du ci jënd yu bees léegi yow yaay obligé doon garantie bi yow nekk ci diggante bi dafa metti de li ouvrier yi di dund jamono jii ñu toll dafa metti képp ku fi des xëy na am nga ku la branlon wala sa ngoro la fi te waaw comme ñun suñu ngor képp ñu fi téye te xalaatuñu mukk dellu ginnaaw état bi mu dimbali ñoo mu ñàkk ñu dimbali ñun li ñu war ci xale yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi ñun dinañ ko def waaye nag comme am nañ droit ci réew mi lañ nekk suñu sañoon ñu jàppale ñu ñaanuñu ko saraxuwuñ ko lenn lim ñu koy jàppalee daal mooy mu lijjanti ñu ay marché ñu ko koy liggéeyal mu ñuy fay waaw loolu am na loolu am na solo mais yow comme yow yaa ngi si métier bi du ñàkk nga tëdd ba guddi xam nga kenn kenn am benn problème si si si otoom mu contacter la léegi yow loolu nan ngay dundee loolu. waaw am na ku naan Ibrahima fii am na Diouf ñun loolu daf ñuy dimbali lu bëri ndax dañoo organiser wu côté boobu mhm. Ibrahima mi fi nekk moom mooy dem jëli oto yi wala laay wala Lamine kenn la ñuy wax ne ko demal nga jëli oto bi fu oto bi nekk ñoom ñoo koy jëli client bi da koy bàyyi ci ay loxo rek ñun suñ demee jëli ko indi ko dafa defal le devis quoi mhm. su dee nangu na après ñu ñu ñu

di jàngale bu ñu découragé état bi dimbali ñu ak ñàkk ñu dimbali nag ñun nañuy continuer di leen jàppale ndax loolu man mooy lépp ko aussi Darmanko moom képp ku fi bëgg ñëw mun nga ñëw Maris si Biros Doré bi moo ngi moo Baxiya bi ñoo jàkkaarloo numéro téléphone bi 77 300 36 64 wala 0 68 19 95 lépp loo bëgg dinañ la si jàppale te aussi lépp luñ bëgg mooy client bu fi ñëw am satisfaire satisfaire boobu daal lañ bëgg daal si la moo tax ñu jënd matériel yi yëpp du pour ñun pour clients yi ak seen liggéey assuré waaw loolu moo tax waaw. waaw léegi lan ngay wax gars yi di ñu seetaan émission waar bi lan nga leen ban message nga leen di lancé. waaw li may lancé mooy émission bi moom ah, macha allah ndax ay euh, ñëw di jàppale nit ñi di wane seen seen i seen i liggéey. du ñëpp ko mën mënoon ngeen nekk comme yeneen gars yi ni ñuy def mais émission bi yàlla na ko yàlla jëmale kanam jàppale ko te képp kuy dóor waar war am na ci part responsabilité pour jàppale leen nañ leen jàppale ko état beeg ñëpp ndax lii dañuy yokk ñun daf ñuy yokk gëm-gëm day tax ñu gën a am jom ndax lii bu ko ñëpp doon def dina baax mais gars yi sabar yeeg tëgg yi lañ gën a féetewu te Sénégal defe naa ne xam-xam ak jàngale moom moo ko war a mën a développer li ñuy wax développement yëpp mi ngi si réew mi mais comme ni ngeen def di ko feeñal mooy tax mu gën a am solo quoi kon yàlla na leen yàlla jàppale daal. léegi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax sama